wax ju am solo dama ni ko Bijou man tey ñaanuma yàlla sama papa bu génnee àddina yàlla na yéex du jël téléphone am di ci dégg lu ne ci àddina non damay. <laughs> damay wax damay wax damay wax damay wax exemple laay wax. kilifa gu génn àddina may conseil ay doom bu kenn jël téléphone am barke Seydouna Muhammad waaw kilifa gu génn àddina bu sa papa yoree téléphone bi gën a cher ci àddina jour boo jaay bëggee wala jour boo jaay bëgg ligg si ba jël téléphone am boo boo ubbee ko sa côté papa doo dem ci armée di ko ñaanal parce que di gis lu ne ci àddina vocal bu ne di nga ko ci àddina barke Seydouna Muhammad vocal bu ne di nga ma taa envoyé ma loolu la nga <laughs> barke Seydouna Muhammad mais <laughs> loolu xaw ma yow xaw ma yow da nga tëjee yaa ngi yàqoo <laughs> ah am na sama xarit bu génnee àddina benn bakkan waaw génn na àddina. waaw. man sama xarit Omar papaam dafa gaañu Omar. ay ay ay non dama Omar nga baal ma de maa ngi dégg. Omar je m'excuse dafa gaañu papaam dafa yore ñaari téléphone ñaari ñaari foldu la yor ñaari foldu la yor bi mu nekk ci otoom ak bi mu def bureau am hmm. gaañu ci malaise bu gaaw a gaaw malaise. xam nga xal ñun suñu suñu suñu suñu génération mu jël mu jël téléphone bi ñu dem kolobaan ubbi ñu dem kolobaan ñu fexe ubbi code bi ba mu duggee whatsapp ba gis papa bi bi wax dañu ma sama papa duma def armée di ko ñaanal lu sama papa ne ko li ko ray avay ma wé ah ah nu me, barke alquran karim eh, eh, yow nekk ci wone mo soor da ngay li way non mais li non mais li pour deug la barke yalla wax nga deug eh, mais li wax deug la kilifa ku jigen adina modou kara job na daf du wér day kon yaakaar naa ni ñoo déglundoo kàddu yooyu nga xamante ni Pawlish Mbaye yëkkati na ko ci plateau bi nga xamante ni mooy confrontation vi sax dafa jommi ba commencé di retaan nee na képp koo xamante ni am nga sa waajur bu góor muy sa papa mu génn àdduna fexeel ba bul laal téléphone am nee bi su gënee cher ci àdduna bi bul ko laal ndaxte di nga ci dégg lu kenn xamul di nga ci dégg lu doy waar yónnee ma nangam vocal nangam pour bañ a gis loolu nag bul laal sa na bés boo dégloo sa téléphone papa jour boobu ngay bàyyi dem armée di nga xamante ni ay confrontation yu grandiose yi Pawlish Mbaye def ci plateau confrontation